ba niñ ko xamé rek tay école mu ngi ubbi suba euh ministre de l'éducation ci ndigalu président de la république son excellence monsieur Macky Sall def na liggéeyam mu ngi wër ci région yi ni ngeen ko gisee di indi ay ndimbal pour école yi mëna ubbi parce que situation bi exceptionnelle la donc il faut que ay mesures yu euh lool mo waral tay euh, ñu nit en tant que maire nga xamné école yu ndaw yi ci charge maire yi la nekk dans le cadre des compétences de transféré euh, ñu nit ñu am sunu taxawaay bu ñu war a taxaw looloo tax ñu ne bu ministère de l'éducation defee ñu nit dinañu jàpp ci li ñu war a jàpp bi ñu évaluer besoin yi dañu ne en terme de de masque dañoo def lu mu néew néew ñetti masque par élève ñetti masque par enseignant loolu moo tax ñu yegg ci tey fukki junni ak juróom-ñett ci ay masques yoo xam ne joxe nañ ko muy mille masques joxe 800 muy juróom-ñetti téeméeru Euh, gel euh, ki liquide euh, joxe aussi ay raxasukaay yoo xam ne école bu nekk dina am benn raxasukaay te ñu ngi xayma woon école yi ci juróom-ñett fukki école ak benn tamit jox leen ay thermoflash école bu nekk dina am am na benn thermoflash boo xam ne ci bunt bi lay nekk bu xale ñëwee ñu mën a xool ndax ñoom it yore dañu température buy tax ñu xaw a xalaat dara wala déet jox leen tamit ay saabu euh, raisonné ko tamit comme ni ko raisonné ci gel yi muy fukki morceau de savon par école fukki gel par école moo tax ñu yegg ci juróom-ñetti téeméeri flacon de 500 ml yegg tamit ci juróom-ñetti téeméeri morceau saabu pour école yëpp. loolu mooy ndimbal bi nga xam ne tey joxe nañ ko jox ko tey teg ko ci loxo IEF mais di gërëm gouverneur mais bala may gërëm gouverneur le ministre de l'éducation ñëw na ba taxaw taxawaayam. mais ñi koy coordonné muy gouverneur préfet IA IF biñ ko jox tay ñom ñep ñu ngi leen di gërëm ci seen taxaway maire yi ci au niveau de l'association des maires euh dañu voter pour élire un responsable régional muy un vice-président régional en 2014 ñom ñep ñu jox ma seen kàddu ne ma jiital nañ la ci région euh doole nak yamul ñun it xam naa dinañ am fu ñuy soxla ndimbal waye li nga xamni moy mooy lu neew néew li nga xamni ñun am nañ ko te ñom amuñ ko fas nii leen di leen ci jàppale looloo waral chaque fois bu dara xewee ñu seet lu ñu am dajale suñuy démag suñuy gerte daal di leen woo ñu bokk lépp pour seen liggéey ñoom it mën a dox ci biir seen localité ma leen di gërëm di leen sant euh, tey trois départements yëpp ñëw nañu te yaakaar naa ne du tey dugguleet ñu ñëw fii ñu koy def ñu ngi leen ci gërëm bu baax di leen sant ku ci nekk ñoom jox nañ leen gel hydroalcoolique lu day ni ñaari carton jox leen thermoflash ñetti thermoflash jox leen ay sabu, fukki paquetu sabu. jox leen ñeenti carton eau de javel mais également jox leen ay masques pour que ñoom it si seen niveau local ñu mën a accompagner seen i écoles yi nga xam ne ñoom ñoo yor en charge wala ñu accompagner seen i jàkka wala seen i juma wala fépp foo xam ne daa ay mbooloo dafay daje ñu mën ko wasaare ñoom tamit. léegi la recevoir la jot ci loxo madame le maire dotation bu jëm si école élémentaire yi école élémentaire publique ak privée total bi 81 81 mooy djourum euh, ñett fuk ak ben classe école Ñom ñu am classe examen ñom ñëpp ñu war présenter ay candidats yu war def examen classe yooyu yëpp dañu tidi suba jot nañu 18000 masques 18000 moy fukki junni ak djourum ñetti masque jot nañ ko jot nañu aussi djourum euh, ñett fuk ak ben thermoflash juróom-ñett fukk ak benn lavoir lave mooy fu ñu la bi jot nañu juróom-ñetti téeméer saabu juróom-ñetti téeméeru gel donc école bu nekk di nga jot gel yu doy di nga jot saabu yu doy di nga jot masque yu doy am nga thermoflash euh, euh, te école yi tamit nettoyé nañ leen euh, désinfecté leen avant wu tey tey jii ni tout de suite bi ñuy tàmbalee damay jël matériel bi su ma ko jotee léegi président ko rek yaa ngi fi oto yaa ngi fi dañ jël rek dem directement ci école yi

Euh, di wax ne jataay bi jataay mbégte la parce que maire bu ci ñëw tey fii am nga soulagement parce que sa xel dal na ci yenn yi parce que maire bu ci nekk da ngaa war euh, da nga jànkuwanteeg ay difficulté parce que dañ ne dañuy ubbiwaat école yi ca ubbiwaat école yi matuwaay yi ci ministre bi wax du nekk maire bu nekk mën nga koo matale moo tax euh, bi madame la ministre Euh, jële initiative ne day yow ñàppale naataayu ngoo maire yi ci dul loo xam ne li guleel la yàgg na koo def kon dañ ko rafetlu gërëm ko ci turu maire yëpp li ci des nag mooy aussi comme niñ ko waxee rek fexe ba euh, matuwaay yi ñu jox ñu complété ko parce que euh, bu ñu jógee ci CDD li ñuy wax mooy maire yi li ci ëpp ci matuwaay yi yéen lañ koy wax ñuy jonjoog